des opérateurs économiques, la disponibilité de notre administration à les accompagner. Aujourd'hui, la simplification de l'impôt, la digitalisation des services, la digitalisation des procédures, la législation dans le contenu local avec la découverte du pétrole et du gaz dans notre pays rentre bien dans ce cadre d'accompagnement des opérateurs économiques, mais également d'amélioration de notre environnement économique. Je termine donc par féliciter Mousseka, mais également souhaiter... Ah, ñu fas yéene accueillir Ama Baldé daal di jublu ci fa ci fees yi bu baax a baax a baax promoteur yi fi nag yëpp yëpp yëpp Kandji production sama xarit ñu lay nuyu booy kayre di lay nuyu bu baax a baax di la jox si yëguwaay di nuyu président CNG xam naa bu ñu demee ba kii di Ama Baldé installé wu dañ koy jox kàddu yi vraiment tey jii lu làmb fi daje ñuy dund làmb tey dundal làmb ñoo fi daje kon gàcce ngalaama Serigne Fallou Luc Nicolaï waaye gàcce ngalaama Demba Ka da nga doon Ama Baldé fi mu toll nii mu ngi yegg si Modou le Modou Lo fii ci AIBD jóge France dem ca hôtel ba nga xam xam ni ñu waaye tey ci lamb bi ñu gis ay xar kanam Serigne Fallou Luc Nicolaï mi ngi doon di egg lion acteur de la lutte sénégalaise laa ko kii moo fi wàcc ak hélicoptère ci biir làmb ji kii moo fi wàcc ak parent ci biir làmb ji kii moo fi ñu fas ci làmb ji Serigne Fallou ñu dugg ko laay ñu doon loolu ñu mën loo bu ma ko jàlloo

sëriñ bu ko defee Merci beaucoup. kon monsieur Koura Sène président CNG ñoo ngi lay la siyaare bëgg naa yëkkati kàddu gi la ko nga daal di nuyoo ak waxtaan ak ñoom président ñoo ngi lay la siyaare bisimilah. bisimilah président bi en scène. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès teg ci waa CNG yi ci teew depuis le Sénat de Messe Ndiaye monsieur l'engagé du président de la jàppale wareekaare yi fi nekk ay ba jéggi nii mais bu ma gis naa leen fii naa bu sant bi nekk yëpp moom fii mooy ñaan ah ay askan waa des sages yi. boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi def ci réew mi te du ko nattable te du ko werante te du ko dolli ay encouragement ndaxte li muy def ci Facebook te ñu koy natt koy àdduna cheikh yéen bokki Sénégal yéen bokki àdduna cheikh Mouhamed Ibrahim di borom xam-xam bu mag bu kenn dul naa taple ci wàllu ñaan seet maanaam asraar ak wàllu fajum cosaan képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sangara ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy wàllu gàllaaj ngir aar sa yaram mbirum samp nit wala gàllaaju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moom moo ci doy fii ci biir réew mi mu ngi nekk ci Nord Foire téléphone am 77 187 61 30.